asaabihim wala balaa ñuy tàmbali di def fatiha ñetti qul huwa allahu ahad ñu yéene ko imam Demba Ndiaye ni mu wax tey la am ñetti at ba mu génnee àdduna moo doon imam julli juróom ci jumaa ji di woy jub di bu baax yal na yàlla yërëm ko ku yéene ci mag ñi fi nekkoon imam Abbas Sall naka Sall sax la woon imam Demba Sall Jalle Mbengue fi imam Abbas Sall bu HLM imam Demba Sall Pape Ismaïla Guèye Pape Cheikh Diouf ak yeneen imam yi fi nekk imam kii Ndiaye papa yi mu ngi ko wax waaw mag bu baax waaw Bilal Diallo Bilal Diallo Bilal noonu fii papa ñoom papa yi tey jii ñu jot waaw waaye Sadio Mbaye waaw waaw waaw Diop Ndiaye Sébi sama sama mbokk yi nag mi ngi woon ndax man deux mille quinze laa ñëw dañu wàññi dañu yàgg ah deux mille quatorze moom deux mille quinze laa ñëw tabaarakallah mag ñi baax lool la wax dëgg yàlla ñu baaxal ñu baaxal ñu ñu yàlla ñu ñu ngeen jënd man aslan fii laa juddoo yàlla ñu màggee si ñoom ñoo ñu ngeen jënd man. li may li may tiit mooy ñun ñii suñu génération doom yi ñëw ndax xaw a ragal tuuti waaye daal <laughs> xale yi góorgóorlu leen ngeen jàng alquran te xale yi ñu intéressé wu ci diine loolu am na solo mais ban conscience li ma leen di digal daal mooy mag ñi liñ ci bàyyi woon téye leen ci waaw ñoom asan waaw asan tubaab la sax léegi am na soxna moom koy seet xam léegi moom léegi seen seen seen bi ma ma Souleymane Konaté moom balaa nga fi julli dina ñu jiite fii dina jël ñaar waaw ñun daawul ñëpp mën nañ jiite ak aadama waaw man yàlla dolli si tool maa ngi leen di nuyu nag di leen ziar di ñaan suñu papa jooju yàlla yàlla yërëm ñu def nag ñëpp loolu la waxaat ñaanal imam jaane yal na yàlla mu jël fanam yal na ko fi yàlla bàyyi moom Pape Habib Gueye Pape Abdourahmane Sy euh, Pape Machine mag ma fi ne ndooy pa ndooy pa pa Gomis euh, ñoom ñaar yal na leen fi yàlla bàyyi ak bàyyi ak yaay ku am am lay ak bàyyi mooy ñu profité ci moom waaw profité ci moom ndax tôt ou tard ñun ñëpp ay def yàlla na yéen yàlla ñu fekk ci lu baax day buy dikk lay bett mag ñi nag liggéey bi ba tey dem nañ ñu ngi leen di ñaan kon yàlla nañu yàlla taas ci seen barke franc boobu yàlla bu mujjee suñu loxo réer mag ñi ñu daan ñaan yàlla bu mu subi mujjee seen loxo mu réeree ci seen loxo ñu def fàtte ñu ne loolu am bismillah alhamdulilah min shaitan rajim bismillah rahman rahim alhamdulilah rabbil alamin bismillah rahman rahim incha allah soo ko sànni ci digg yëpp mu ànd ko bi ngeen teew nag di julli si di déglu waxtaan bi tam ci am laaj nga koy laaj tey nag comme dañuy tëjee bi di leen ñëwaat ci fukki fan yu mujj yi incha allah joxe ay ñaan ah ñaan ñaan lu baax jullit day ñaan bi njëkk njëriñam gudd fan yonent nee na ñeent yi ku koy def fi nga ñu ñaan gudd fa wala baax na ñu gàtt fa baax na gudd fa alaaji Malick nee na lu ma ragal yàlla ragal yàlla su ma yàlla woon sax sa àjjana assuré du du tere ma ñaan boobu gudd fa ndax loo am ci lu baax loo am ci lu baax ci yiw di nga ko soxla yow xëy na même bu dul yow nga dugal ci sa njaboot waaw nga dugal ci sa njaboot dafa am Pape Maodo Si yàlla yàlla dugal fa na def bu dafa ni nee na góor gi àjjuma bi bu mujjee julli moo ko la def nee na dañu ñëw ni ko nag papa magee nga yaram bi mayeetu la ko ni ko laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusaa yàlla tegul barkeel mu àttal kon nag ji wàcc na julleen fii rek bàyyi ñu ñu dem julli yi na mu ni leen ku leen wax ni sama quatre-vingt-treize ans yi ma dund yëpp sama jumaa tey lii la yàlla war a est-ce que xam ngeen nit ci sa dund yëpp benn julli la yàlla soxla su ko nangoo rek nangu nga sa julli yëpp mais xamoo man moo tax ngay góorgóorlu foo toll ndax am amilu makaral laa jaatax mais yàlla bu mu nangu sa benn julli jeex na mais ñàkk xam fan la moo tax des na ngay julli mun leen ndax sama julli tey bii la yàlla dina ñun ñëpp ñu noonu mu ni la mu ni pa mu ni mu ni mu ni sëñ Maodo si doom Maodo mu ni ko si mu ni ko kuy tukki tukki bu te xam nga fa nga jëm loo fay loo am ci yóbbal doy wax na dëgg de ma wax mu ni kuy tukku ci bu sar te xam nga fa nga jëm loo fay fekk loo am ci yóbbal doy mu ni waa mu nag rabal xataa ya teekal yaqi mu ngeen koy def yàlla mu ni jaamal yàlla ma dee moo tax mag ñi ñoom fa tabaaraka ñoom dañuy jàmm yàlla ba dem moo tax nag gudd fan غور جيما وخلا دمج موكو واي مي حديث لا لودو نيت دي اقتباس موني نينتي بن بو سي ديف رك ديو توفا جاب نبا تا موني ما عبد الله لي دي مو بيد بوت بي دي واي موني اربعه تزيد تقال في العمر شفيعنا المختار نهضة قبر أولها تزوج الأبكار بل وأكلك التفاح في الأصحاب كذا ابن ثابت بماء حاضر نمنا على الشمال يا ذا الله انا لم اقول هو وينو سيباي عبد الرحمن سي ما توسي نلي جي نافا جيف ني جيف يو تيار محمد يونتي بو نيوات سي بولو في جي فك تاك بولو ما فالاي خالص تا مجلس كان يرسل لم يجري سنه بفي بريك تيك لم يكن وخا نتي بولو كو جي جي fa mbooloo ma toog rek yem fa yow caa tax na bu ñëwaat ci mbooloo Cheikh Hadj Malick ni kaana nekkoon na al julusu toogukaay dëggu ñeent Seydina Muhammad xay suñ saxaaba bi suñ fa mbooloo rek musul jéggi waaw ñun Cheikh Muhammad xalis boobu mooy wala alaaji bi way am na benn bu ma wax imam Baye Faye comme borom xam-xam la nee na ma nee naa ko firi na nee na bi njëkk bii bu dal sant mooy tàkk xale takk takk jabar xale waaw waaw te zawwijul abkaar moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee bokk na ci lii gën fa takk jigéen yoo xam ne jàng moo tax nag bu njëkk ñu fonkaat ak jàng ci jigéen yoo xam ne boo koy jël jàng mag ñi fonkoon ko looloo tax day guddal fan takk xale la mag ñi dañ doon wax ne nikaaxul ajuz sumul xaatin waaw takk màgget sumul xaatin la dam leen ci misaal bi firi leen ni sumul xaatin moo tax takk xale day tax a gudd fan gars yi def leen ay ñaareel ay xare waaw grand dégg benn ngi noonu mën mën nga ni imaam bi jafe mu ni góor gi yëpp de alal la wa aklu kattu faax fil asxaar mu ni war a ngay lekk pomp pomp fajar pomp pomp yi nga koy lekk fajar léegi jël pomp waaw parce que pomp ci ñam aljanna yi la waaw Cheikh Hadjar Rachid Ba mu ni Seydina Mouhamed nee na ngay lekk pomp da léegi da koy def ay tranche di ko lekk ba fajar avant ngay xëy rek dem génn sa kër nga lekk day gudd ndax laa def lu wax dëgg la ndax nee na lii wax ba ko def shafiuna al muxtaar muhbat mudarim sayyidina Muhammad bay bay sant jiiru mu baax moo ko wax kon jàppale ñaar boo mënul benn bii moom neex na lekk pomme fa jaar nee na pomme bi mën nga koy changé mën na ne bu xonq mën na ne bu vert mën na doon bu jaune façon pomme bu mu nekk dee ko kii rek di ko di ko di ko ndékkee seen jaay

diko sang sa yar yonent am Muhammad xamne muni day guddal def ala da do way am na ci benen riwaya da ngay gis tomb bi day def ma in jaari wala ndox muy daw comme ndoxu dex ndox mo am bu taxaw comme comme nga leen ndax ndoxu dex non dex yi da ci sang day guddal fa waaw bi mujj bi nawmul ala chimaali yaa sal qaari ak teud na nelaw nga bañe a dëppee nga bañe a dëpp dëpp dëpp day fa nelaw di dëpp maanaam jël nii dëpp nii mu ne lan moo gën gëm ni nga nelaw xol bi fii mooy nga tëddee gauche wala nga tëddee droite maanaam wet nga tëddee wala fi xol bi fii nii xol bi muy gauche comme deret dafa diis da ngay tëdd droite ba mu yàgg après nga gi lu tax nga seetlu bu ñuy wër kàddu yi góor yi droite gauche lañ koy wër parce que xanaa fii moo tax ñu koy wëree gauche di nelaw fi xol bi féete nii day guddal fa dëpp yonent nee na mooy ku leen dëpp ndax waa safara xanaa nga am ngànt làkk nga fii ci ginnaaw wala nangam ñu la dëpp ba ngànt la mais fii ak yaa koy mën tëddee nii droite wala tëddee gauche yonent bu daan tëdd day jàngaat toujours loolu la wax ni bismika allahumma amut wax yàlla def ko ni tëdd wala nga tëddee ñëw ñeent yi nee na day guddal fan nee na bokk na ci liy guddal fan mooy ngay ngay sikkar yaa baati yi subaat lool yaa baati yi nga koy wér cent treize parce yi ci turu yàlla yi ko mooy yow ni sax ku koy def da ngay gudd fan yaa baati yi yaa baati yi cent treize yaa baati yi yaa baati yi yaa baati yi cent wa ah, tabaraka bokk na ci lii guddal sax jokk mbokk jokk mbokk comme nga jékki tey ni tey daal sama xel dafa ne ci imam Babacar Faye da dem nuyu ko ni ko dara andi moom dama ñëw rek ziyaar la dama la gën a gis bàyyi ci jàpp ngeen waxtaan ñaanalante dem day guddal sax bokk na ci lii guddal sax fonk sa ndey ak sa baay fonk wuyu day guddal sax parce que ñaari wuyu maanaam sa wuyu bu xolam seddee ci yow rek da ngay gudd bokk na ci liy guddal fan ngay dem fi ñu denc say ñaari wuyu yi génn àdduna di leen ñaanal loolu day guddal sa fan parce que ñoom fa ñu nekk dañ naan yàlla kii bàyyi ko fa te ñaari wuyu ci ci barzaq moo ëpp doole ñaari wuyu ci ba wuyu kon ca barzaq ba mu nekk saa yu ñëwee nga yónnee ko ay ixlaas yónnee ko falaq ak naas di ko jàngal kaamil yooyu nga koy defal saa ko loolu day guddal fan. ndax yonent dafa wax ni isa qaatal ibnu aadama inqata amalu illa min sadaqat al jariya aw ilmin yuntafa bi aw walad salih yad'u lahu donc di ñaan ko ñaanal koy yàlla day dundal sama beneen bi dundal sama moy tab tabe tabe ko xam day may xam nga tabarakallah imam aaj bu fekke ki mu romb bokkal la bu demee tukki ñëpp ngay ñaan ay waaye yàlla gaaw a yàlla bu ko dara dara moom kañ nangam parce que ñi am yakkat ci yow dañuy bari moo tax tabe ci alal dafay guddal fan mbokk yi bari na mën nañ ci wax lu bari waaye fa tabaaraka allah yàlla ñu yàlla may gudd fan yàlla ñu yàlla may wér yàlla yàlla sàmm sàmm njaboot yi leen fàtte yaa baaqi bari na cent treize yaa baaqi yaa baaqi da ngay jiital trois teg ci dix teg ci cent nga koy ñaanee yàlla yàlla ñu sutura yàlla yàlla ci baax ngeen ci sallallahu Alaihi Wasallam ku fi tewe fi teew rek aaju bu mu teew yalla ñu fan bi jasi na Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam ko ni khat khat ak jafe-jafe yalla ko yalla ci ci ko ni bi nga xamni mom la ñu tay moy ku di fuk ak ñaar douze ah moy ku di di ci julli 5 seulement yoon la dix rakk cinq seulement rakk bu ne fàttali benn ci loolu waxaat six juróom-benn ku ko def yàlla dina la tabaxal kër kër wurus ak jamaa ca àjjana képp ku ko def yàlla jéggal na la sa bàkkaar njëkk ak yi képp ku julli julli bi am na yoon ku jàng ñeenti li ñu tuddee les quatre livres révélés muy alquran ñu koy tuddee le Coran injil ñu koy tuddee tuddee évangile tawraat ñu koy tuddee suum ak sabu euh, zabur mooy suum lu euh, mu tudd tawraat ñu koy bii mi ngi wàccoon ci yàlla Muhammad bii yoon ci yàlla Moussa bii yoon ci yàlla Isa wala yoon ci yàlla Idris bindal na la yoon bu jàng ñeenti téere yooyu yëpp nee na naka noonu yëpp ëllëg na la ci mbugalu safara te di nga mën a ràmm say xeer lu la ci neex ñu ko dugg ñu dugg biir àjjana dix rakaat cinq sëlmal ràmm ne Fatiha a yoon loolu la wax ak six जिले में लोगों से